moo ci seen jàngat ci loolu. moom kay dama yaakaar ne loolu euh, respecté naa ñu fa nekkoon. Hmm. ndax samay kilifa ñu ngi fi nekkoon ci wàllu tarixa bi. Hmm. am na ay kilifa politique yoo xam ne naw naa leen seen histoire politique Sénégal ni ñu fi dëralu bi egsi fi hmm. mais nag la fa amoon mën naa ko bañ a tuddee dialogue dañ fa doon suyee xëy na théâtre sax naa ko mën a tudd. dialogue national bi ñu woote ji parti politique yi ñëw ak ñeneen ak ñeneen. nga leen nga moom pour mu mën a am. par hmm. force dañ génn ci ay guerre civile. wala mar d'Italie. Hmm. réew génn ci ay situation yu difficile. mais kii nee na moom moo gañ avec 58 pour cent Sénégal yi moom la ñu jox mu war a diriger réew mi 5 yi ñu jëm. Hmm. moom kay li war a mooy te programme am diriger ko dem. ñu war a opposé non ci la nekk mais waxtaan xanaa kay waxtaan dafa waroon na waxtaan avant la woon. moo ñu waxtaan ci processus électoral bi. ndax Sénégal yëpp gis nañ opposition bi taxaw ne ko. bëgguñ Aly Ngouille Ndiaye organiser élection yi. du ko def du ma ko def du ko def ba muy ñetti yoon la wax. def la ko neex génn réclame ab victoire am 58 pour cent. a ñëw leen a woon a wuy ji jal ca dialogue ba buñ tegee lu baaxul ngeen ngeen ngeen teggi ko ñun parti passif mais nag toog xanaa ku la woo dina la wax mbaa avant campagne bi ñu njëkk a taxaw ne ko léegi nañ def débat national. Hmm. taxaw ñaari kat mais nag waxee tamit euh, réew mi yëpp la soxal. a am lu ko wund. Hmm. mooy da a dialogue ci hmm. ah, wax bu subaa du ko def kooku mënoo wuy ji en tant que président waaw en tant que président sa sa kàddu mu gën a ratax laala. kooku wax ah, dëgg yow li ngay wax ni offense la de. ah offense lan <laughs> moo am di bu dee offense moo am. Ah. ndax lu mu la wax tey bu subaa du ko def. fan yële jàll gis ngeen 2016 woote na fi dialogue national. Hmm. bi ñu jàll bi mu am ci satisfaction nee na pour cent moom Macky Sall. Hmm. daanaka sax du ma ci yemati. Hmm. damay def chaque le 28 dañuy woote dialogue national. est ce que gis nga dialogue bi mu génnee ci élection yi xam ne Sénégalais yi joxuñ ko bopp 90 pour cent ci yi weddi nañ ko. gis na loolu tiital na ko. dialogue bi yëpp nag ma xamal la ñaar kenn ko ci ñoroom muy président Sonko. Sonko dialogue bi yëpp président Sonko la bëggoon mu ñëw si te am naa ci ay preuve leer. ñi mu doon yebal ñu koy woole négocier moom yëpp mu koy récité. kon dialogue bi daal Sonko lañ ci doon. rëb moo tax amuñ ci satisfaction moo tax moom dafa am mbetteel. ndax ñi ko président Sonko réussir luñ mission bi. ndax président Sonko du fu ñuy diile Sénégal du lépp lu muy def da koy gëm ña demoon ci dialogue ba 90 pour cent yëpp gëmuñ dara. mais Sonko yemu ci mais dafay ñi wuy ji fi mu toll da leen da leen di xas te loolu xëy na. Ah, mais moom dong wuy ji. presque ci candidat yi bu dee bu front bi moo yaay dal seen kaw. Hmm. ndax nit mënoo nekk ne ab front. Hmm. front ku ci nekk am ci sa représentant. Hmm. mënoo jékki-jékki di jël yenn décisions yi ci kaw front bi te waxtaanuñu ci kaw front bi. Diop Decroix li mu def nan nga ko xam nga nit ko xamante ni pesé woo dara ci langue politique Sénégal ku mel ay Diop Decroix Omar dañ koy jël mel ne ci kaw Sénégal yi ñu def benn ci ñu di ko waral mooy li Karim comprendre yi mu doon def ci moom yooyu dafa jóg ñu dakkal xam ne Sénégal yi da nga leen a war pour nga respecté Sénégal yi far fos nga respecté sa bopp ñun fii ak Pastef ngi am ci Sénégal gi man maa ko njëkk wax ci Mor Mbaye Cissé ne ko Ousmane hmm? di ko mënoo ko dèjà reconnaître ko comme président de la république hmm. ah, ñu nekkoon ci quatre candidats yëpp ñoom ñoo ko signé hmm. ne reconnaître ñu comme président de la république dèjà kenn félicité ko ci nit ki mënoo koo ñàkk reconnaître ba pare muy woote ab dialogue nga di dem comme président ñu ko fa demoon da ngaa wuy ji Macky Sall comme président nit weddi bon na mais yéen tamit euh, boo ko respecté dalaa war a delloo <laughs> war mais est-ce tamit euh, du euh, patriotisme bi ngeen di wax mujjeewu ci égoïsme <laughs>

yow la engagé. gis naa sax benn honorable député bu dëkk Touba Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly. di ci wax wax ju ñaaw président Sonko ko ko. Hmm. lebalu ko mu hmm. hmm. a baax a baax ndax assemblée nationale bindal ko ay question mu dem posé ci ah bon waaw te moom nag na xoolaat taxawaayam baax a baax a baax mi ngi gàcceel askanu yoonu murit yëpp ndax mun di la tudd sëñ Tuubaa te ku bëgg mercenaire pour saagaloon nit recruter wala dara loolu war naa xoolaat taxawaayam mm-hmm. loolu moom lu ñaaw la moom voilà euh, ñu avancé tuuti gis nañ tamit euh, fast track bi président supprimé premier ministre bi ngir gën a gaawal li ko dese ngir joxaat boppam doole ngir joxaat boppam doole yow yokk ko <laughs> yokk ko jëlam amoon joxaat boo joxaat boppam doole mujjee keneen fa tegoon diirante ñoom mbagg xëy na dem na ba wóoratul buñ jonn wa ilaa am na leneen yeneen raison yi tax mu supprimer rek moom moo xam est-ce daal du dara ay créer créer deux ans sept yi fi nekkoon yëpp liggéey bi gaawul nii dafa nekkoon sept ans tatoon yoo xam ne da nekk di ah di gaawal Macky Sall lépp lu def hmm. politique moo tax mu def ko deful dara pour intérêt Sénégal Sonko lu mu def du politique. non non Sonko moom lépp lu mu def. Hmm. intérêt askan moo tax mu def ko. ndax intérêt askan wi moo tax fa mu hmm. moo tax lim daj lépp mu daj ko ci cinq mooy politicien bi ëpp ñu saaga boo bëggee million sax wala nga bëgg a tukki wala nga bëgg passeport a am. <laughs> voilà sëñ Cheikh ñu ci euh, Touba ak jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonteel jamono ji lan mooy euh, yi nga gis ni Touba war na ko mën a am te te amu ko wala lan mooy jafe-jafe yi ci Touba. Touba moom jafe-jafe yi yëngu ci yi bëri na bëri waaye goo xamante ni foo ko takk passé na ko. mën naa ne sa Touba euh, du ma ne amul dara ndax moo bi dafa diis ndax dëkk bu am sëñ Touba moom ñàkkul dara. mais ci wàllu développement. Hmm. dëkk bi mooy dëkk bi gën a dellu gannaaw ci Sénégal. Euh, moo am effectivement nawet baa ngi nii di si yow euh, ñun ñi nga xamante ni boog doomi Touba lañ. Hmm. yoroo Touba juddu Touba màggee Touba te ñaanuñu yàlla génn fi benn yoon nag. Hmm. lu dul wuti koom-koom indiwaat ko ci dëkk bi xam nañ ne nawet bu ñëwee difficulté yi waa Touba dund yu jéggi day war te lépp dara warlu ko lu dul gouvernement bu seeraan waa Touba ak mairie boo xamante ni. gouvernement bi lim ci def ci wàllu assainissement sëñ bi. xanaa gisoo ci ay wax. est-ce que régime fi jaar yëpp li mu fi def def nañ ko ci wàllu assainissement. Ah, kon de parce boo xam ne day màgg de day màgg màgg gu yaatu noonu. Ah. vraiment ah assainissement bi nekk na lu gars yi. sali man daal liggéey dama bëgg bu ñu nee la diw def na nangam a nangam. Hmm. yow mi dëkk ci dëkk boo geesoo gis ko waaye ñun ñi dëkk ci dëkk bi li ñu gis mooy. Hmm. bu nawet jotee. Eh, suñu yaay ak suñu mère yi suñu maam yi ak suñu yaay ak suñu baay di génn seen kër yi di luye yi. Touba mosquée bu nawet jotee jumaay Touba ji doo fa mën a dem. mais loolu am na Dakar sax sëñ bi. Ah, waaw loolu xam nga Dakar concerné man tubaab moo ma concerné. Hmm. Touba nga ma laaj. bu nawet jotee doo mën a dem ci jumaay Touba ji julli ji. Hmm. bu nawet jotee jàkkee suñu saay bi dëkk suñu ndaamaatu na muy mel yooyu nag li jot mooy ku munta gouvernement bu la munta régler ñett yi na hmm. gouvernement hmm. mooy nga faju nga soxlaa faju mu nga soxlaa faju hmm. mu wutal la hôpital bu fajoo nga soxlaa liggéey mu wutal la xëy nga soxla dëkkuwaay bu baax a baax mu tegal la environnement boo xam nga a dëkk dëkkin a defal autoroute Ila Touba bi xanaa gis autoroute Ila Touba bi Touba tax koo jóg wax naa ko encore une fois mais dem boo bëggee ñëw ñëw xam dëkk Touba ñi ngi ciy dem di ñëw nga ne Touba tax koo jóg nag autoroute bu fekkoon te ni Touba la ko bëgg a defaral xam moom su fiwul dara lu deux fois oto bi jaar nii bi jaar nii te duñ laalante waaw ah, du dara te wér gi yëpp mën na ci ñàkk ah. léegi nag bu fekkente ni defar Tuubaa mu ko tax a jóg ah. sun sun sun sun route nationale bii nga xamante ñun moom lañ amoon nga xamante nii sax président Iran moo ko financé woon euh, Dakar bu Touba hmm. président sortant bi fi nekkoon dam xaalis bi def ci poosam mujj financé lu ñu njëriñ bu Touba <laughs> loolu bu fekkoon moo ko tax a jóg te di boobu lay yaatal hmm. bu ko yaatalee du côté du côté gouvernement Sénégal 90 milliards te boobaa bor duñu ci fekk. nga xam ne 450 yi xaalis bi ñu ci war a def mën na koo ñëw def ko ci biir dëkk bi. mais mm. mm. autoroute à ñu ngi dem seen ñëw sa buntu kër ah, loolu moom képp ndaw la am vision waroo ko tiituroo képp ku politique waroo ca wax sax ndax ndax kooku dafa xool ne Touba moo gën a gaaw a génn njëg li mu def ko Touba bu ko Ndar gënoon a gaaw a génn mu a gaaw a génn mu def ko Touba mooy dëkk bi nga xamante ni la nit ñi soxlaa dem fa la nit ñi bëgg a dem bu ko defutoon feneen fu Touba day perte te nag ñi nga xamante ni ñoo fi def autoroute bi it juruñ seen xaalis di ko sànni képp koo xamante ne ay commerçant doo nga lañ Touba dañ gis ne moo gën a gaaw ñu def ko fi waaye loolu du dara. <laughs> lan nga gisee liggéeyu maire Touba ci jamono ji. waaw maire Touba ki nekk ci meer bi dama ko yërëm ndax xëy na sax bëgg na. Ah, bëgg na maire bi nga koy yërëm sëñ bi. du tax du ma yërëm mooy xay na am na yéene liggéey wala leen waaye mënut a liggéeyam ndax bala ngaa mën a liggéey compétence bi dafa war a nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye koo xamante ni xamul dara munul dara lim man mooy nelaw monsieur le maire <laughs> xamul dara xamul dara munul dara lim man mooy nelaw yeewu boo waxee mu ne sëñ bi ma fi teg nangam ak nangam kooku moom li mu li mu war a def moom mooy li mu war a def moom mooy lenn hmm. woote conférence presse ñëpp di ko déglu hmm. mu jéggalu waatuwaay yëpp yëpp yëpp jëlaat liñ ko dénkoon moom jox ko sëñ Sidi sëñ Sidi xool ko compétent mu jox ko dëkk bi ndax dëkk bu ñu ne fa la sëñ Tuubaa dëkk sëñ Tuubaa ni ko am mhm. ak sëñ Tuubaa ni ko xam-xam ñora woon mhm. def adduna bépp ci xam-xam ñu ne kan moo jiitu dëkk bi ñu ne ka ko jiite mënut a liir mënut a bind loolu moom gàcce la ci yoon murit moom loolu moom lu ñu war a rectifier la moom mais est-ce que moom nga war a attaquer ka ko jox kay sëñ bi xanaa moom nga war a waxal buñ la joxee loo mënul da nga koy delloo <laughs> léegi buñ la joxee loo mënul nga ñëw ne lii man sëñ bi jox nga yow yaa ne mënu ko mais moom waxu la mënu ko ah mu ay mënu ko kay ay fee la hmm. munu ko ay feneen di munu ko mooy ba mu fi toog ba def fi dara. laaj ko def fi dara. ah lu mu fi def bilan ba mu fi toogee ba léegi. bilan sero sero sero sero zéro bi def fi tus. lan ko def fi dara lu <laughs> dul bénéfice ci di ci tabax di ci takk ay jabar di ci tabax ay kër. di taxawaa lu ko neex mu def. li war a def mooy woote conférence de presse ñëpp di ko diglu bu ca paree it wëraat ci kër waa Touba yëpp yëpp yëpp doon ko def jur dundam yëpp mu jéggul leen mm-hmm. jëlaat lengee def jox ko sëñ Sidi mm-hmm. sëñ li fi nekk ci ay nit ñu jàng li fi nekk ci ay borom xam-xam di ay taalibe sëñ Touba kenn xamuñu toll mu jël dëkk jox leen ko mm-hmm. Touba développé ndax bu Touba développé Sénégal développé. Sénégal développé voilà xam naa waxtu bi sax li ci des euh, bariwul ñu wax ci wàllu kaaraange gis nañu ne jamono ji Touba xaw naa ñàkk kaaraange yow en tant que kuy yëngu ci politique. du euh, Touba kay Sénégal képp moo a waaw waaw surtout Touba euh, manière générale moom Sénégal moom boo gisee nii dëkk bi demee. xam ne képp ku yorum njaboot. gu ndaw di nga tiit lool lool lool ndax kenn amatul sécurité. ñun nii di dugg sax xay na mën nañoo génn fii kenn kat escalier yi jam ñu paaka. Touba du mujj ko mën a saafara nag mooy indiwaat peine de peine de mort waaw mooy ku rey yow d'accord nga ci peine ah, yàlla moo gën a fonk ñëpp doomu aadama yi te moom moo ko wax hmm. képp ku rey nit dañ laa war a rey hmm. loolu moom jëruñu ci masla yërmande yàlla moo ñu prison boo fa demee am nañu fa tëdd ñoo xam ne dafa fekk ci sa biiru waajur hmm. sàmm la fi juróom-ñeenti weer dara sikkut ci yow mu génn wàll àdduna bi kooku moom bu fekkee ne yërmaane moo ëpp ci ñëpp yërmaane mais doomu aadama nag moom mata di nit dañ koy tooñ dugal ko sëñ bi ah kon kay léegi demal nga nga rectifié ji yàlla yàlla moom hmm. moom jëriñ hmm. laa war a rey hmm. man nag kilifa yi demoon ci dialogue ba moom pour pour pourquoi posé wuñ loolu ne ko indil peine de ci dëkk bi te ñoom nee nañ ay lu ñu am diine leen ko may jàkkaarloo lañu nekk président de la république lañ ne ko indi fi peine de rey waaye président yaa rafet président opposant bi. président Sénégal du état islamique de. Ah, mosu koo doon te moonte euh, peine de moor bi 2004 ak Abdoulaye Wade dina ci constitution moo fi na mosu foo ci la ko si war rey. mais dañ dindi. moo fi nekkoon naka jekk hmm, hmm, ah, hmm. Amérique gi peine de mort moo fa am ak yeneen yeneen réew. te ñooñu jullit moo mën indi solution ci nit ñi. kon daal jàpp nga ne yow ñàkk kaaraange gi ray ray bi daal nga jiir lu toll ne bakkanu doomu aadama ñu wutal la këyit faat ne la dof jékki-jékki génn war la ci kaso bi mm. mm. euh, lan mooy sa kàddu yu mujj <laughs> ci jotaay bi xam naa waroon naa mën a gën a ah, mais dinañ am temps insha allah rabbi ngir yaatal ko am ci mbégte ak contentement rek mm. di jéggul nag di la jéggulu baax baax baax xëy na lii waroon naa am bu yàgg-yàgg dëgg la mais nag euh, jaam pexem yàlla dogalam bi ma fi ñëwee it gis naa fi lu kawe sama njort. Mm-hmm. du ñaan yàlla seen site internet bi. Mm-hmm. dem ba jur ay télé télé. ndax yàlla mën na ko. yàlla na ko suñu borom def. gis naa fi ay ndaw yu dynamique tamit mm-hmm. ñoo xamante ni liggéey rek lañ gëm. lii rek mooy journalisme. amut secret. mooy jox sa bopp askan wi rek. di leen déglu lépp luñ bëgg nga dox jëm ci. beneen secret mu ko am. tey moytu corruption ak yeneen ak rek. di yàlla suñu borom defal leen jàmm baax rek. waaw ah, di profité rek di gërëm sama àndandoo bi. voilà sëñ Saliou Wade ne moom moo nekk suñu chargé des élections niveau Touba. élection na ci coono yu toll ne màggalu Touba. waaw mhm. ah, ci ñu koy jéem a jënd. Mhm. di ko jéem a ah, moom mi dañ ko doon jéem ku xam li mu yoroon ci élection yi mhm. euh, bu ñu am bu bu Pastef réinséré hmm. di parti bi ëpp lu mu fii ci département Mbacké eh, ci mboolem Pastef hmm. grâce à Saliou Wade ah, te loolu taxawaay moo ko waral xam naa moom dina jàkkaarloog ah. asu ci jotaay ah. insha allah rabbi asu yi du proposition bi ne moom am hmm. te it gëm président Sonko moo tax mu toog bu heure bi jox ko boppam du du ma ne gëm président Sonko sax ndax moom dafa xaw a terre à terre mais gëm réew mi moo tax ma di ko def ndax ñun ñëpp Sonko taxu ñoo jóg tey jii lim mu ne moom lay moom la fas yéene yore Sénégal mu mm. mm. mm. changé ko lekkal mm-hmm. euh, sant bu di ko gërëm Serigne Cheikh euh, Thioro u euh, Pastef ci Touba ñu ngi koy sant bu baax ci OF gi nga xam ne am na ko ngir wuy ci jotaay bi waaye tamit yaakaar naa waxtaan bi liñ ci doon sant yu bëri vraiment matal na ko ñu ngi ko ci sant baax di ko gërëm di sant Cheikh Ndiaye mi nga xam ne moo ne kon ci caméra bi ak Moussa Ka Khady Niang moo nekk ci montage bi di leen jox dig daje incha allahu rabbi ci beneen invité incha allah rabbi invité de la rédaction jërë ngeen jëf